Matin. émission billet au Sénégal. Secteur 44. quarante quatre fii ci Tivaouane salam gan Massata alaikum salam maaleykum salaam Babacar. député assemblée nationale bah député Won, Gnao Diomaye Dogol, na lim dogal biig mm-hmm. nga falu qui ci liste Yewi, bokk ci PUR parti c'est Moustapha Sy euh, dogal bi lu le, bett la doon xaar la am waaw jërëjëf di euh, euh, dissolution assemblée nationale yi nga xam ne mooy le président de la république acté na ko démb waaw mu nekk loo xam ne nag foog naa ni euh, weñ naaw sax xamoon nañ ni assemblée nationale bi deux ans lay am ñun nag à travers le PUR ma ci nuyu le président Serigne Moustapha Sy ko ñaanal wér ak Yewwi Askan Wi ñun ci lan faloo woon parce que ñoo jiite woon liste départementale bu Tivaouane mais wax yalla euh assemblée la boo xam vraiment ñu bari dañ ko dañu dañu dénigrer assemblée nationale bi dañ koy wax xarab euh, ba ci yéen journalistes sax damay dégg chaque jour ngeen ni euh, yak assemblée bi lu melni xamé mais assemblée bi il fallait que mu meloon noonu parce que dafa am ay député yu ñew euh woote rupture fekk fa yeneeni i député yoo xam ay député yo xam député la yo xamni majorité mécanique la nekkoon voter leen ñu voté bu leen voté duñ voté lan fa nekkoon moo il fallait woon coow li bari majorité mécanique le la son groupe Sonko bëgg et des demain ah man jàpp ma ni majorité mécanique l'en bëgg parce que euh, li ma gis mooy xëy assemblée bi euh, demande sociale la boo xam dit tey comme ni ni askan wi doon xaare HCCT ak euh, conseil économique et social pour ñu dissoudre ko Euh, noonu lañ doon xaare nu ko raw assemblée nationale bi nga xamante si ni euh, tey moom la ñu dissoudre démb mais man jàppuma ni majorité mécanique lay doon parce que gëm naa ni assemblée nationale ah xëy na peut-être euh, liggéey dëgg mooy tax nit ki am fa majorité boo xam ni tey jii vraiment loo bëggatee voté ti ñu voté la ko. Mouhamed Diop justement loolu laa ko bëggoon laaj est-ce que yéen bokk leen ci ñi tax niveau assemblée wàcc bi ngeen fa ñëwee parce que gis nañ. ci seen euh, législature bi mm-hmm. député yi yéeg ci kaw foqati ay ay ay urne ki ba ci yow mi ak sa naataango sax dóor ngeen fa beneen seen naataango jigéen alors que dañ leen doon xaar ci ay question orale ak écrite lan mooy ce bilan est-ce que bokk leen également ci ñi nga xam ne ñoo wàcceel suuf euh, nga xam nga ñëw naa léegi bi bokk na ci législature yi gën a yi gën a euh, am am am vraiment yi gën a liggéey ci législature yi jàll assemblée nationale. Ah lu tax parce que euh, gis nga taxawaay bi ñu am yeewi askan wi taxawaay bi ñu amoon face ak euh, Benno Bokk Yaakaar suñ ko amuloon tey Macky Sall mooy wéy di gouverner li nga xam ni mooy. Sénégal que ay kurpeñ ki doorante kese la mënoon. waaw xam nga loolu loolu circonstance bu fa xewoon la. mais ñun du loolu moo ñu yóbboon assemblée nationale. chaque jour mo wax ko nee naa Euh, am na loo xam ni tey jii euh, euh, nun koy wax agression physique lay doon am yoo xam ne agression verbale lay doon du ma wax sax agression mais mën naa ni tey jii wax mën na mën na jàpp nit ki di ko ronger ba ba ba mu dem foo xam ni mu bugg foon a dem. par contre nit mën nga am blessure wala soit nga tóoranteeg nit bu jeexee jeex na mais tey jii la ñu yóbboon assemblée nationale dëgg. woon loolu cest à soo ko bëggee indi il faut mu am nu mu demee il faut nga am loo wan nit ñi. à titre personnel ñaata question orale wala écrite ñaata yoon nga interpellé gouvernement yi ci yan question la également par exemple. non bari na man man def naa ay question écrite yu bari loolu laaj ko waa Tivaouane xam nañ ci dara man li ma dugal ci ay question écrite kan xamul mu tey li ma loolu laa lay expliqué nga assemblée nationale bi li ñu dugal ci question écrite législature mosu koo dugal ci assemblée nationale. tontu nañ leen. waaw am na ci yu bari yoo xam ne tontu nañ ñu parce que question écrite pratiquement da nga koy adressé ministre bi directement daf lay tontu tontuwaale député yépp mais est ce que tontu ba dina dina dina ànd ak acte parfois tontu ngay jot rek mais la nga soxla woon ca question écrite ba mën nga ko bañ am mais législature bi wax dëgg yàlla il fallait que mu demee woon nii parce que su demewul woon nii gis nga tey jii Sonko wax na ko ak ñeneen ak ñeneen ko parce que bañ leen di sanc ci la Guy Marius Sagna di këf kees ga di taxaw ci table ya teg ci ay fan Barthélemy Diaz di putti micro lépp lu jaxasoo assemblée yéen a ko njëkk a jaxasal. waa xam nga loolu lu ko waral. xam nga assemblée nationale dafa am sa sa bi nga defoon ndaw. <laughs> xam nga assemblée nationale dafa am lu lu ñu penk muy la loi organique. loi organique boobu nag suñ ñëwee assemblée nationale ñu ni vote bi nii la war a demee mu leer naññ xaatim ko ci kayit yi président assemblée ak majorité bi mu àndal ni ñoom nii lañ ko bëgg a doxalee. parce que amna lo xamni soruñu ko won parce que moment boobu y'avait foog naa ni 5 candidats yo xamni présenté won nañ ci ci ci euh, à la tête de de l'Assemblée nationale. lolu peut-être loi organique musko won sor muy le règlement intérieur bi ñëw fofu nak fofa liñ waron rek moy appliquer li nga xamni mom la daan appliquer su ñaari candidats amé mais ñu bëgg ni ñu noo duñ def non nanen lañuy doxal té ñun xam nañ ni suñ défé vote bo xamni ni ngi dégg du du du vote bo xamni ñëpp dañ lay gis ngay voter affaire yi mën naa jaar faneen mën nañ ko jaarale foo xam looloo waral loolu am mais tey jii ñun ñii ñëpp xam na ni ku ne xam na ni boo demee ci tribunal ba am na am na lu la tënk boo demee faneen ak faneen am na lu la tënk kon assemblée nationale suñ ñëwee tey ñu bëgg ñu imposer loo xam ni règlement intérieur wanewul loolu ñun dinañ wane suñu bopp def face ak ñi nga xam ñoo ko bëgg a def. 17 novembre la muy euh, législative anticipée yi. Mm-hmm. est-ce que yéen koy waajal euh, bi di passé ci euh, Yewwi Askan Wi ngeen demee woon. Mhm. Euh, nan ngeen fas yéene demaat bi di ñëw. waaw ñun xam nga dama koy wax chaque jour. ñun ku ni àndal àndu gor la ni ànd ak yow. Askan dafa am lu ñu fa tënkoon ñuy ñuy ñun le parti pur dafa am lu ñu fa tënk muy charte Yewwi Askan bi ñun charte yooyu lool noonu lañ doon sàmmonteeg charte yi. ba démb bi nga xamante si ni jomaay dissoudre li nga xam mooy assemblée nationale. parce que tey bir mu ngi won ci bir groupe parlementaire yeewu askan wi ci bir assemblée nationale ba ba demb ba ba tey ñu ngi waxtaan ci sun groupe bo xamni ñu nak les euh, les députés de Pastef ñoko bok ak Ahmed aidara Habib si ak euh, Aïda ak euh, nu ñu koy waxe ak ak le pur ñooñu tay ñoo bok li nga xamni tay moy ye, groupe parlementaire yeewu askan ñun nak jomaay dissoudre na assemblée nationale ñun suñu parti am luñu teunk moy ben amna président du parti am directoire tey le président du parti ñu Togon, mënuñu waxtaan naa tel parti Ousmane Sonko Khalifa Sall ak PDS ak et tant d'autres pour ñu former benn coalition bu tudd Yewwi Askan Wi noonu la ñuy toogewaat xaar suñu président wala suñu directoire du parti fan lan ñuy jëmee ci échéance électorale yi ñu jëm pour lu wax ni peut-être lii moo gën wala parti bi décidé ñun ci la ñuy mais ba jusqu'à présent ñu ngi continuer woon di ñi nga xam ni tey ñooy waa Pastef ak yeneen député yi di ko def nag ci yoon woo xam ni di ko def ci anam boo xam ni anam ba mu gën a rafete ci anam ba nga xam ni moom la charte yi tënkoon ci biir yeewi askan wi. ni ngeen àndee woon ak Pastef ci ay at ñu gañe ñoom. Mm-hmm. Diomaye Fallou Sonko nekk premier ministre. ñuy séddale ay post sédd nañ waa PUR. waaw ñun sédduñu ñu mais euh, gis nga PUR rupture la doon woote. mooy mu Moustapha Sy le président du parti toog na wax bis ni bis bu nu xoolee ba ñii fi nekkoon faluwaat fi mag ñi génn ci ñun kon ñun li nga xam ni moom lañ doon gën a xeex moom lañ doon reyante mooy fexe ba li fi newoon jóge fi te beneen bi ci des membre boo xam ni ci Yewwi Askan Wi la bokk jiite li nga xam ni mooy réew mi te loolu yàlla jeex fi nag sëñ bi rupture amul ndax post yi moom Pastef moo ko sédd ay ñoñam partisanerie. waaw xam nga ñoom ñooy gouverner. am na ci loo xam ne ñun. mënuñ noon naaj naaj lu ma li ma gis laa wax. ñun gouverner wuñu ñoom ñooy gouverner mais. wax dëgg yàlla la ñu tënkoon ci yeewi askan wi ba tey mooy ñuy ànd ak ñoom duñ leen fakkatal duñ leen wax loo xam ne lu jaaduwul la parce que dafa am loo xam ne incohérence lay nuru mënoo ànd ak nit xeex euh, ci campagne euh, électorale bu bu bu locale ñëwaat législative ngeen ànd xeex. présidentiel, mu jot ñu ni ku nek na wut candidat bopam ñun suñu démé ba tay jomay fay le président de la République gagné élection yi nek le président de de la République du Sénégal ñun pur dé yi amuñu lenn luñ ci wax lu dul sant def parce que gis nañ ni yeewi askan wi amal na Sénégal ndariñ parce que yeewi na Sénégal. xawoon na xëjëm également ci présidentiel yi. ànd ngeen naam ci local yi ak ci législative yi mais présidentielle am na quelque weccanto kaddu diggante euh, Pastef ak PUR ak même ay ay yenn fitna ci nga xam nga présidentielle moo demee noonu ku nekk dangay samp sa mbër tey jii yow mag yow lu nu xaritoo xaritoo tey bu élection présidentielle jotee yaa ngi dégg ku ci nekk day xool

am na ci ñoo xam ni ci Pastef lan bokk dañ ko jël peut-être xëy na jàpp ni ñoom euh, jomaay la doon waxal wala la dénk ay loxo yoo xam ni amuñu expérience ñu ko jox ay wayo wayo waa léegi loolu du dëgg yow euh, Babacar lu toll ni Sénégal kun koy jox war nañu xam kin koy jox kan la mais loolu réalité la est-ce que ñu ko jox mate na ko boo gisee cinq mois yi nga xamee ne moom la jot a doxal ak errements yi ñu gis ci yenn dossiers yu bare bare waaw xam nga tey jii xam nga euh, jàpp nañ ni rupture mu ngi commencé di am parce que am na loo xam ne daan nañ ko gis tun ko yow gis nga nii Sénégal fii foo fi daan dox di nga boo doxee deux mètres di nga romb policier wala gendarme wala ñu barricade fu ne gis nañ ni daan tëj nit ñi. tëj ba léegi de. déedéet mais loolu dañuy xëy na dañuy dañuy dañuy gérer sécurité bi mais ni Sénégal meloon ak léegi nga xam ni yow soo daan wax sax da ngay say mbokk dan naan la xoolal li nga wax ndax sinon foofu lan lay fekk jël si la loolu amatul. commencé ñi ay député lañ imaginel tey président groupe parlementaire si lay Diop tëj nañ ko kaso. boole nañ ñoo bokk ci euh, euh, même numéro bi ñuy yeewoondoo li ngay wax ni. wute nag taxawaay yi ñu gis da ci ñoom Diomaye ak Sonko. waa mais xam nga li ëpp solo ba ëpp solo mooy tey bu bu ma foogoo bu bu ni ma woon xëy na loolu la fi amoon. Diomaye day falu rek ñu commencé traquer ni ñi di tëj. mais ba nii may waxee yow gisagoo kenn kun dem ni tëj nañ ko. amna ay quelques xëy na duñ lëm ñëpp mais également luñ buñ toftalee ci ñom ba Diakhaté ak ñom Imam ndaw bok fi ci Tivaouane. am na loolu loolu ay flanc gën a dañuy wax. ñu ñep gis amna également amna également ay interdiction de sortie du territoire yo xam ne ci ben atte yoon. waaw mais interdiction de sortie man dama japp ni ki nga xamni tay moy le président de la république wala ñi nga xam ñoy gouverner bu ñu yégué ni parce ñom amna information yépp bu ñu yégué ni diw mii kat. soxla nañ ko bientôt. te de la base légale. waaw base base légale moom laa lay wax. tey jii mais gisu leen fi woon régime régime régime passé ñu ñu waaw ñuy ñuy barricade ay nit nit di ah. na kayit gi loolu. bi mandargaal lan. mais ñii war ñoo génn réew mi. mais loolu à ah, ñoom ñoo koy ñooy définir loolu. mais est-ce que ñoom mais est-ce que ñoom est-ce que ñoom yoon la. moment bii nii ñu génne liste comme ñoom ñin ko defee woon ba ci ay député yi newoon ci ci ci ci diaspora bi ñu bind seen tur nii leen carrément yéen ku fi wàcc bu soobee yàlla doo fekk élection yi. saa waay ñiy falu defaguñ fi dara lu leer. non Babacar justice xam nga lu tax. waaw commissaire Keita mi jël yóbbu ci kaso bi ndax euh, li mu gis ci Facebook ne Diomaye ak Sonko dañ doon cooki. mais buñ mm-hmm. cookiwul wala problème tëj bi ñu tëj euh, commissaire Keita yëfi mbuucaa mbuuc la. tëj bu ñak fayda la. mais nak eh, babakar commissaire kayta mom wax deug yalla man awma ak mom ben problème mais koku mom wax deug yalla gis nañ taxaway bi mu amé ci réew mi mom day day danaan yé fitna. def ngeen fi lu fi raw. loolu lan la yeen yaan waa yewi def ngeen lu raw li commissaire kayta def te kenn japp leen ci won woon. mais ñun waa yewi ci principe lañ doon démé dañu amone droit de marche droit de manifester buñ ñu ko teree am nañ droit sañ-sañu genn ñun. li constitution bi xatim ñun loolu lañu wara ñëw def politiciens yi ça dépend rek ci ngeen féete opposition wala nguur. kaay ma xamal la leen nag foofu nag dinaa la fa gindi tuuti. tànki Macky rek ngeen. non may ma ma ñëw gis nga ñun opposition bi opposition bi. ñun day ñi nga xam ni waa PUR lan ñun ku ñuy àndal ci principe la ñuy ànd ak yow. gis nga tey jii ñii nga xam ne ñoo jiite pouvoir bi. bis bu nu demee ba gis ni yoon win doon yaakaar ni fa leen jëm ñun la PUR nekkuñu fa. ñun di ñun si suñu bopp dinañ démarqué wala ñu ni leen carrément yoon wii du moom lañ doon xaar ci yéen. est-ce que démarcation bi daawul woon commencé également ngeen critiquer de façon publique kon naa ne également kaddu Cheikh Omar Diagne par exemple. waaw no Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne mu wax kenn du ko rafetlu. mais dégguñu leen ci. déggu leen ci kan. pur non mais euh, xam nga ak président xam xam xam nga man. man interroger nan ma ci ba taay wax naa ci parce que sëriñ bi xanaa dina moom kaay ma xamal leen lenn sëriñ bi ku ne xam na ko. sëriñ Moustapha amul kuy saña kuy taxaw ci àdduna te bu la waree wax dëgg du la wax dëgg yéen xam ngeen loolu. gàmmu gi nag mu ngi ñëw bientôt am na ci loo xam ni jarul yàkkamti nañ xaar sëriñ Moustapha moom bu génnee lépp loo xam ni actualité wala lu mu war a wax dina ca wax daan na toog nag ni man. duma ma fajal meru kenn wala duma fekk kenn kuy xeex ma ñëw di jël di jëlub xeexam lu may demee ci principe la koy demee kon donc ñun gëm nañ ni Serigne Moustapha niko aduna bi yépp xamé xamni ci logique la né ci dëgg la né ci lépp loo xam ni ku muy àndal ci yoon ngay tege boo ko naree yóbbu ci lum xamul moom mun la carrément demal continuer saw yoon man ma continuer ci yoon bi ma xamoon. waxtu yi jeex na waaye faw ñu laaj la pur quand même mm. ci wàllu diisaayu élection. Mm-hmm amul touti en arrière buñ xolé élection présidentielle avec sen candidat bi euh, xob yi am comparé à 2019 par exemple. à 2019 ñaat leen jëloon du quatrième leen jëloon tay ñu ñëw jël troisième ñaar ñu ñu raw est-ce xam nga ko muy ay grande coalition muy passif, muy coalition jomay président ak coalition bi nga xamni ñom ñoom ñoo euh, ci pouvoir bi muy Benno Bokk yaakar mais pur mais ku toll ni taxaw bu Sénégal Khalifa Sall ak ñeneen ak ñeneen pur pur ñëw jël troisième té élection yi sax ba jusqu'à présent ñun xam nañ ni ñun li nga xam ni moo waroon na am ci suñu côté amna na amna am na am na am na problème bu ci am motax ñun wax dëgg yalla xaar leen ñu ci élection législative ku ne xam na ni pur parti la bo xam ni bu kenn dootul lam lamé doole ji am ci Sénégal loolu nak buñ démé ci essence yi ñu jëm ku nekk di ci xam dara jërëjëf euh, Massata Samb masata say Massata Massata karaté <laughs> waaw non bu karaté woon ndaw sa waaw non xam nga loolu ñun wax dëgg yàlla ku nu xam-xam ni euh, hmm. xol yu rafet lañ yor ku nu xam-xam ni euh, ñu mën a taxawu nit est-ce am ngeen jàmm sax léegi finalement est-ce que jàmm dellu na seen diggante yéen ak ndaw si juboo ngeen a ah? non ñun ak ndaw si moom jaar am na loo xam ne bu xësee ba jaar ci diggante laneen mënatu faa am loolu la parce que ñun ci principe boobu la ñuy dundee ñun lu ñuy def lu nekk rek day dëggu ci ñun jërëjëf Mata Samb jërëjëf Babacar nga woon laata jomaay di wax député <laughs> yi pur mais député yi ñun jusqu'à preuve du contraire ba keroog assemblée ñëwaat ba ñuy installé ay député ñun dañuy continuer di nekk député jël jëf jërëjëf Massata Samb jërëjëf Babacar jël jëf mbokk yi xabar xabaaru huit heures yi alaaj Ndiogou yegsi na ngir baxé leen ko ci kanam Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout